li tax mu jóg mooy fexe ba combler gàpp bi nga xamante ne nii moom moom manqué parce que am ñu deux 162 cinq 500 yoo xamante ne nii état Sénégal moo ko jàppale commune bi commune suñu commune nag 32 cent habitants 162 tonnes gis nañu ne du doy ñu yokk ci cinq tonnes pour mun a toucher à peu près au moins 600 ménages yoo xamante ne nii boo ko euh, mille cent vingt cinq ménages yi. dina xaw a jot population bi nga xam ne moom lañ yaakaar ne bu ko jotee frustration du am looloo tax euh, ñu nag conseil municipal bi ñu toog waxtaan xalaat ne lii kat euh, war nañu jéem a jëf ay jéego pour jàppale population bi loolu moo waral wax dëgg man ak sama conseil municipal ñu toog waxtaan ci ak les deux adjoints ñu jël engagement def ko. taalibe yi ci lañ bokk poste de santé sax ci lañu bokk. caserne yi aussi war nañ leen jàppale parce que ñooñu aussi ci population bi lañ bokk. ñi nekk ci àll bi ci nawet lañ nekk ñooñu ay béykat lañu béykat buy béy il faut mu am lu mu yóbbu moo tax période bi ceeb bi ñëw nekk période boo xam ne euh, dina jàppale ñëpp ñun itam laataa ñuy bu ceeb bi ñëwee mënañ mënuñ ko woon gaaw joxe il fallait ñu xaar wax dëgg yàlla ba état bi joxe ceebam ba pare ñu door a joxe su ko defee état bi bu joxee ñu complété li li ñu amul. pour éviter frustration looloo tax ñu doon xaar ba état bi joxe alhamdulilah rabbil alamin ceeb bi nga xamante ne état bi moom la digloo nag commune Fimela yëpp joxe indi nañ ko ñu koy joxe eh, léegi moo tax aussi waxtu bi dafa jot pour ñu aussi ñu pour combler gap bi ñu ñu ñu joxe suñu ceeb. ñetti weer buñ la buñ tëjee sa hôtel te xam ngeen ne hôtel yi li ci li ci ëpp ay journalistes lañ ñi ñu embauché dañ leen bariwul donc foofu coono am na fa. ñooñu nga xam ne ay journaliste journalier lañ nga xam ne ci journalier lañ doon dund yor ci seen njaboot ñooñu aussi euh, bu liggéey hôtel doxul du sotti te xam nga ne hôtel yi bu ñuy ko bu ñu ubbee ci la mobilité bi dem ak dikk bi ci lay ëpp fii parce que ci la ñuy dem ñuy xëy di lay gont di liggéey donc ta loolu wàllu na transporteurs yi loolu moo tax euh, wax dëgg yàlla ñooñu ñooñu sóoraan leen bu baax ci euh, ceeb bi pour aussi mun leen dimbale. képp koo xam ne itewoo na ceeb bi mu war ko jot ci anam yu rafet. dina ko jot parce que bu ñu ceeb bi ñëwee ba pare dama dañu oo vérificateurs yi nga xam ne sous-préfet moo leen tànnoon pour ñuy vérifier nga xam ne ñoo demoon ci ci dëkk yi recensé ñi war a jot ak ñi warul jot xam gàpp yi ne ci dëkk bi ñooñu ñëpp dañoo taataan ak ñoom euh, def ko de manière proportionnelle dëkk bu ne la nga yorul ci ceeb ñu ñëw boo paree nga ñëw jël ko buñ ku ci jot dotation bi ci étape bi da ngay jaar ci magasin bi ñu gëneel la sa ceeb nga yóbbu ko. école waroon na ubbi le ba muy wa ubbi aussi avant muy ubbi waxtaan nañ ak euh, inspecteur mu jox ñu li nga xam ne moom moo war ci commune bi service d'hygiène ci boppam sax dañ leen dépêché ñu pomper école yi yëpp pour que benn jafe-jafe duñ ko am loolu yëpp def nañ ko def nañ école yi nga xam ne moo nekk sama commune yëpp kit lave yi ñu ngi ñu waxoon ne déjà cinquante et lépp laa def ba mu mot masques yi li ñu waxoon joxe nañ ay masques ba dese gàpp deux mille masques yoo xamante ni dañ ko denc pour que en cas bu ñu démarrer bu amee problème ñu joxe leen ko.